dalen ak jamo mbokk internet yi ñuy suivre ki nga xamne modi president Osman Songko Ousmane Sonko tina lu Sor, fële sa Sor, mom maire bu sor élèves yi nga xamne nak ñoo dàq jang sa zigen sor da daari jox ay cadeau yu ama ama mom solo mom maire bu sor nga xamne jamono ji ma nga fele sa kasaba waye teewul ma ngay def liggey bu ama am solo dinañ leen dégtal nag vidéo bi ngeen uh, teewlu ko ak jàngat yi nga xam ne def nañ ko si lu rëy li nga xam ne kii di président Ousmane Sonko def na ko beneen bi ab question bu ñuy posé dina ñëw tamit si vidéo bi mooy que ne kan mooy l'homme de ne ñu bari nag nee nañ Ziz si Faye lañ koy jox am ñu ne déedéet Ziz bu Ndakaaru lañ koy jox ndax nag moom mbir ma gën a grave la daal di dogalee léegi nag ñun dañ leen di laaj yéen ñi nga xam ne yéen ay patriotes yi yéen ñiy siiwul seen bi kan mooy seen l'homme de l'année ndax kii di président Ousmane Sonko kat xool nañ ma xool lim ko jël bari na at yi yëpp moom mu jël kon nag jot na nag mu daal di joxe nag couronne gi kan mooy seen l'homme de ne yéen ñi nga xam ne yéen a ngi siiwul ñu bàyyi leen ak vidéo bi ngeen teewlu ko bu leen fàtte abonné tey like tamit dina am solo di leen like vidéo yi yaa ñu bàyyi leen ngeen teewlu vidéo bi. macha allah président Ousmane Sonko kon cadeau yooyu ngeen gis moo ko jox maanaam élèves yi nga xamee ne ñoo ñooy le maire mhm. élèves yi gën a jàmbaare moo leen moo leen jox cadeau yooyu kon mi ngi encouragé ndaw ñi ci njàng bi waaye ak njàng ak njàmbaaram weesuut koo xamee ne bi nga ñëwee fekk ab Abdoulaye Balde bit budget Ziguinchor doon 2 milliards nga yóbbu ko 6 milliards ba xam ngeen ne budget Ziguinchor actuellement moo ëpp budget Touba commune bu Touba loolu ak njàmbaar la boo xamee ne bi nga ñëwee ñu doon ci saax saaxee suufu Ziguinchor si da ngaa taxaw ne na ñëpp arrêté nga ne li des ci suuf si néew ji doole ji nga koy may mooy képp koo xam bëgg nga ñu may la suuf li fi jot a des da ngay indi kayit wuy wane ne mosoo am benn suuf ci dëkk bi kooku mu ngi bàyyi xel néew ji doole koo xamee ne bim ñëwee ñu ne mairie Ziguinchor quarante nangam personnes la waroon a jël ñu fekk fa lu mat sept cent personnes ñi am ñaari salaire ñii tëdd dakaar ñii di fayeeku ñooñu ñëpp ñu ci ña doon tappale ñëpp génnee na leen mairie bi kon kii bu jotee ci réew mi réew mi dana dox soo xamee ne fexe nga ba mairie bi nga yor def nga fa machine boo xamee ne yëpp kuy xëy liggéey si da fa teg sa baaraam mu wane ne yow xëy si nga heure wàcc nga heure kon loolu ak njàmbar weesu ko koo xamee ne mairie si ngeen soor ma masaa ñëw wala mairie yu bari si Sénégal sax pour nga wut fa benn kayit léeg-léeg da fa def ay waxtu yu bari wala léeg nga passé fa journée bi la Ziguinchor nag kayit woo fay wut maximum quinze minutes ñu lijjanti la ko ngi génn dem sa yoon loolu moom ñëpp xam nañ wax dëgg fa yàlla su fekkee bëgg nañ suñu bopp dooñu ñu ay jaam walla ñuy ay xar wala ñuy ay mbaam nañu wooteel Ousmane Sonko kii ku bëgg réewam la kii kuy liggéeyal waaye waxuma dara koo xamee ne biñ la falee ci mairie bi salaire ba nga fay ya am da nga ne ko mayat nga ko waa mairie bi Ziguinchor ña fa nekk ñëpp seede nañ ne oto mbalit moom bis bu set boo xëyee nañ la romb di jël mbalit Ziguinchor ñi ëpp taal mbalit la nga xamoon ba léegi sax am na ñoom bàyyeeguñ ko waaye actuellement nag ñu ngi ciy bëgg a yeew wax dëgg fi yàlla kii jàmbaat la kii jàmbaat la de ci diir bu gàtt lu ma dun ñaari at nga réaliser li yàlla nañu ko yàlla fayal ah man de Kara Thiam wax dëgg yàlla da man de ah ma ku nekk nag am nga droit soit li la neex waaye Saabu si fay yow da nga xool Saabu si fay li mu liggéey Saabu si fay sëñ bi xoolal lu kenn mësul yaakaar lu kenn mësul yaakaar waaye sëñ bi Saabu si fay ñëw njëkk teg dëgg xam nga dëgg Ousmane Racine Thior def na ak jàmbaarte def na tamit la ma waatoon wane na ko waaye Saabu si fay. xamne wañi bo gis rek ci ben lay commencé wañi bo gis ci ben lay commencé mais nak wax deug yalla ki nga xamne mo moo ndax bu ne Ousmane Sonko ak ak 6 ñepp ñëpp ngi doon yaakaar ne ak Ousmane Sonko du mos am deug ci 6 sa ba ci fay ñew a teg deug ci Ousmane Sonko ki ñew it feddali ko kii dafa ñew feddali ko ndax ki mo na euh Ousmane Racine Thior mo na def ni ni doomi haram ji def xawma nan ba ah waaye gis nga wax dëgg yàlla ki njëkk a feeñal dëgg mooy Ousmane Racine Thio kii Saba si Faye man moom wax dëgg yàlla sama lom dem la ne moom Saba si Faye la waaw Diop maa ngi lay siyaar waaye waaye man man ke ah man de wax dëgg yàlla moom euh, euh, sama lom la ne moom Saba si Faye la moom wax dëgg yàlla Ousmane Racine Thio nag moom naa ko def deuxième waaw wax dëgg yàlla gars yi nag jël nañ moom gars yi ñun jël ñëpp mérité woon nañ mérité woon nañ l'homme de l'année maître Clédor lii euh, mérito na ko maître Bamba Cissé mérito na ko avocat Ousmane Sonko yi mérito nañ ko wax dëgg yàlla waaye Ousmane Sonko nag mbir mi da koo jël ba sonn nag depuis 2016 ba léegi Ousmane Sonko mooy loxo lom da koo xam ne kii 24 heures sur 24 sa tur foo tur na yaa ngi koy dégg kooku koy wax dëgg yàlla di tudd ay ay waaye nag jël koo xam ne kii def na ak njàmbaatu goo xam ne kii jël na fitam takk fitam wane dëgg njëkk koo wone ki ci topp na topp nga ci rek jaajëf. waaw mais Samba dafa ndànk nag man Samba Faye ci moom laa ëppoon yaakaar que siis bi si suñu affaire yi keroog Dakar mais sa waay kooku imaginer position bi mu nekkoon biir Dakar sa waay foofu foofu foofu sa waay dëgg dëgg dëgg dëgg moo fa ñu may tubaab xam nga Sabassy si dëgg la jàmbaar wax dëgg yàlla moo ubbi affaire yi rek euh, Sabassy si Faye man na ne gis nga Sonko bi mu nekkee Dakar ak bi mu nekkee so bi mu nekkee Ziguinchor xoolal ñaari ñu amee différence même Sonko jëm borom Ziguinchor la ëpp sécurité que bi mu nekkee Dakar imaginer li wax. parce que li waral loolu mooy que fee moom sëriñ ñu jóg protéger la waaye biir Ndakaaru nga yeewoo biir Ndakaaru yeewoo ci biir administration bi jël fi bu toll noonu at dëgg te mu nekk laas te boobu mooy laas dafa nag nag moom la ñuy wax sànni tàccu dafa sa waa la de vraiment sën la la waaye nag euh, Samba sa jàmbaar la mais kooku itam macha allah de man de sama lom yaakaar naa ne moom laa moom laa ko jox. ah man de Diop wax dëgg yàlla maa ngi nuyu sëñ xaadim moomu man de wax dëgg yàlla man Saba si fay xoolal yow xoolal Saba si fay Saba gis nga da lay Saba si fay ku ne xam na ni eh, bi mu nekkee woon bëggoon maanaam bu tey mu na jox leen mu sécurité bu doy sëkk ñaata ñaata lañ ko diit ñaat lañ ko dig ci tàng-tàng bi bi ñu demee ba xam ne la eh, nañ ko ba sonn sottiwut ci la ma jambal jaan di génn na ferelu xawma lan ci ki liggey ci mairie bi eh, ferelu eh, saaba ci fay la xam nga yoy ba état bi defé ay garam ba sonn xam ki kii mënu ko ger te day at deug te mom bim mu xam nga bi gaay digé wu mom lim wax moy man deug lay at deug lay at de ñoo loolu ñom dambo Dame wax ba doomi xaraam ji seen avocat bi cravate eh, bi da ko mujj yolomal dem na ba sumi ay ay dàllam biñ demee ba ba joxe verdict joxe gaa yi ko bi mu jël torsom waaye sëñ bi nag wax dëgg yàlla xay si nag dëgg dëgg nag wax dëgg yàlla nag dëgg dëgg nag neexut ba neexut waaw man de loolu da la ne wax dëgg yàlla sàmm si fay laa ko jox moom eh, Ousmane Racine Thior nag moom dafa ñëw. feddali kooku kooku kooku moom gis nga li li Sabassy Faye àtte xam nga gis nga li gars yi naan law bi moo neex a jàngali pël